jërë ngeen jëf mbokk internet yi dal leen ak jàmm ñeel li nga xamante ne seen rek moo di conseil interministériel lu xamante ne seen rek ña ngi koy gis di ko nemmeeku rek lu bëri bëri kooke di premier ministre ba di Elimani jawriñ ja Ousmane Sonko di ko amal bu baax a baax si ay secteurs yu xamante si yu bëri bëri dem ko jëkke ko woon sax foofee jëm si wàllum campagne agriculture bi nga xamante ne si ne ña ngi koy waajal bu baax a baax ak ay nouvelles yu xamante ne si ne rek daan na say tukki ko jëm rek si baykat yi ndax gannaaw ban rek wàññee li nga xamante ne si ne di engrais bi def si ay subvention yu am doole lool ba taxit mu doon ay nouvelle yu neex a neex loo xamante ne si ne daal nay neex lool eh, baykat yi beneen sax ban sa mujjee nemmeeku mu doon ay conseil interministériel bu jëm si wàllum njàng mi mën nañ na sax ay examen ak i concours yoo ya xamante ne rek ñi ngi ko doon eh, def ak naka las koy waajale ak naka las koy gën a amal yorewaat ba defar ko moom kooku di président Ousmane Sonko tamit yëkkati si ay kàddu yu solo loolu waaye nag askan wi jamono jii rek ba tey la ñuy xoolee li nga xamante ne si na rek moo di gouvernement bu bees bi ak la sa bëgg gun lenn rek la mu dee wàññi rek li xamante ne si na moo di dund gi seeraa gi ba tey rek ñu koy wéy di ko jooy ba tax rek saa sore rek ñu jàpp ne kooku rek di gouvernement bu bees bi war nañoo def tout rek ba rek wàññi li nga xamante ne si na moo di nekk dund gi xamante ne si na jamono ji ñu ngi koy dund te bëgg rek mu daal di waaye nag kooku di premier ministre ba nang say liggéey